en tout cas ñu njëkk ñi ñi ngi def lu bon. Mm. mooy xewit bii ma gis xaw ma jigéenu mécanicien la. Ah. xaw ma jigéenu mason la. Mm. di sol yére góor wala góor gi dem di sol yëre jigéen. yëre jigéen ñi ngi def lu bon loo xam ne. Mm. buñ ko moytuwul alku fii. Ah, alku liggéey de mais liggéey du la teree garder seen principe Assane fii dangay ngay liggéey. mais du lu la neex ngay sol. Ah, xam nga fii sañoo ñëw di takki soutien. mukk te da ngay liggéey. wallaay dëgg la mais liggéey dafa ànd ak i charte. yonent sallallahu alayhi moo wax ne laana allahu almutashabihiina min alrijali binnisa walmutashabihaatu min alrijali binnisa nee na yàlla rëbb na bépp jigéen buy niru niru lu ay góor wala góor guy niru niru lu ay jigéen yegg ci ne góor guy sol yërey jigéen ak jigéen guy sol yërey góor yàlla na yàlla rëbb leen oh. cest à ku yonent di ñaanal yàlla na la yàlla rëbb mm. yow nga bëgg a taafantaloo ab liggéey tax nga bëgg a mel ni góor mm. maanaam lii caaxaan weesuwu ko ku ko jege nañ ko wax ne liggéey te génn ci lii mu nekk mm. baaxul de mi ngi alag boppam fii mi ngi alag boppam fële ah. liggéey du raison pour nga ne da ngay dajj mboolem principe yi la waroon a tënk ci sa diine ak ci sa aada mm-hmm. nga dindi lépp sànni fële ci turu damay liggéey pour la mais góor ñi ñu ngi liggéey te terewul melokaan yi jigéen ñi sax bari nañ mais dañuy léttu seen i léttu waaw ah. sol seen tëni tëni mécanicien ah. bu noppee summee ko sol seen yéree jigéen ah. sang ba set dem ñibbi mais ñii am na ndaw sama ma la am waaye ak góor la mais ab sippam la sol naan kaay leen jaay maa ngi jeex sol sippam sol bëdéem gis nga mm, ñoom it ñu ni day liggéey ah kuy liggéey lu la neex def. waxuñu dëgg dañoo taafantaloo liggéey bi. mooy ñi nga xam ne affaire góor jigéen moo leen neex ak affaire lesbienne moo leen neex. Hmm. te mënuñ cee dugg direct. Hmm. ñu jaaree ko ci pom yi. di ko kafaale naan lii moo ko laaj parce que damay jaay ay jupe ay soutien ma ah, solaale ko ah. mu mel ni damay jaay or que jaayul moom lool loolu mooy habitude am. Hmm. fii prêt-à-porter yaa ngi fi. waaw ñi fiy jaay yëri jigéen bëri na duñ ko sol. <laughs> ngay fekk góor gu sol lu correct. te montant prêt à bi mu teg ay yëre jigéen a fa nekk. nga dëgg de ay caaxaan la ay tappale la mhm. yaa ngi liggéey jigéen góor ñi sax am na ñuy togg restaurant. waaw te tax duñ sol yére jigéen. waaw ah, yére góor la ñuy sol de. Ah, nañ bàyyi seen caaxaan yi lii ay tappale la. même xew yi sax am na góor ñoo xam ne ñoo ñëw togg xew yépp jox ko nit ñi lekk mais. boo leen gisee da xam ne ñi ay góor lañ. mais seen liggéey la ñuy def. wax fa dëgg yàlla. Uh-huh. mais en tout cas lu ñaaw la xewit bu bon la. Mm-hmm. nañu ko bàyyi jigéen na nekk jigéen. Mm-hmm. góor na nekk góor loolu la yàlla bind kenn mënul fexe ba góor ñi walbatiku di jigéen jigéen ñi walbatiku di jigéen. ay bon rek waaye du ko doon. est-ce que it yoon mayu la boo gisee koo xamante ni ñu ngi naan góor la ak mhm. nga la ko juru. ba xam góor la am jigéen ba xam góor la am jigéen bu la la ñëwutu yat bu la leeree ni góor gu wër la nga doog xool noo koy def. waaw bu ñu ko luwaa mayoon de dama xamul ndax luwaa dana la may nga ne ko ciix yóbbu hôpital am teel mais en tout cas bu ko luwaa mayee woon mhm. yegg na ci góor gu ñu war a fekk ci mbedd mi ngay sol yëre jigéen ñu ne la nuus jàpp yóbbu ci kaso bi. Hmm. ba regle say mbir jigéen gu ñu fa fekk ngay góor góorgóorlu ñu ne la nuus jàpp yóbbu ci kaso bi ba régler say mbir ba pare. Hmm. ñu xam loo doon cest à ab société dafay régler ko mais ab société du désordre. Hmm. ku nekk mel na la neex. xam nga yaa ngi koy junj léegi maa ngi dégg benn féministe sànq ci rajo bi mu ngi ah. wax bay wax ne. ñoom fi mu ne nii dañ nekk ci changer code bi. pour léegi war a dem sax ba may jigéen. au lieu muy yi mais góor gi bu ko takkee mooy ñëw. ah dañ ko bëgg yóbbu assemblée ñu wote waaw loolu lañ bëgg nee nañ. Ah. ba pare dem ba encore même sa doom bi yow. Hmm. sañ-sañ bi nga ci am. xam nga yàlla moo ne ar-rijaalu qawwaamuuna ala nisaa. góor ñi ñooy yilif jigéen ñi. Hmm. ñoo leen di taxaw ñoo leen di toppatoo ñoo yor seen lépp maanaam daal ñooy autorité bi. Hmm. léegi ñoom nee nañ parti boobu dañ ko bëgg wàññi parce que sañ-sañ boobu góor gi am même sañ-sañ bi la jigéen gi war a am. nga xam ne xale bi jigéen gi day décider. bu ko neexee sax boo ne mesere lay sant mu ne jóob lay sant waaw boo ne day jàng fii mu ne day jàng fee su ma ne dama koy maye kii boo ne dama koy maye mu ne duñ ko maye koo kii lañ koy may cest à baatu kër gi moom foog ñu séddoo ko sañ-sañu kër gi cest à ñii fi jëm ak ñun fan la. mais sëy gi nag moom nu mu nu demee. looloo gën a garaaw parce que nee na lu tax jigéen bu ñu ko takkee rek daa war a dem. pourquoi góor gi mënul ñëw. léegi yow boo amee xel naan ah waaw comme. mais loi boobu góor ñu bëgg lu yomb baax na waaw góor ñu bëgg lu yomb waaye musiba lay doon ci yéen de. <laughs> nu muy doonee musiba. Assane imagineel tey nga takk benn jigéen mun na la ñëwal nga sëy si nga dem sëy nga dem ba jëmi jamono nga bëgg a takk ñaareel. Ah, foo koy indi ci kër gi. ma gis waa ji laaj ko loolu ne ko waa léegi kon waa bu takkee ñaareel nag nan lay def mun a waaw bu takkee ñaareel mu utal ko fu mu dëkk est-ce que dégg logique bu bon bi. lu tax mu koy utal fu mu dëkk te wutalu la foo dëkk yow. Uh-huh. ah bu ko wutal fu mu dëkk. Ah, ñaareel mu léegi mu ne bu naree wut ñaareel na ko wutal fu mu dëkk c'est-à-dire kon mooy dugg ci kër gi moom. waaw du fa dugg maa nga dëgg. léegi kim takk tamit bu na ko man du ma ñëw foofu léegi nag góor gi di def nii ku la ci mere football la nga génn ci biti. sëñ bi nañ bàyyi seen jaaxaan yi yàlla bi mu naan. mais ñooñu est-ce que jar nañoo dalal si rajo kon. mukk ci àddina wax yooyu. xam nga mais nag pencum démocratie loo ci man démocratie lañ la wax. danaan la ñëpp am sañ-sañ wax waaw mooy féministe nee nañ droit de l'homme la ñuy xeexal waaji na ko góor ñaa ngi fii di dund lu métti du ngeen leen kaasal <laughs> aka ñoo ñemee yàlla nag mu ne mu ne waaw man man dégguma góor gu wax ne ñu ngi koy. fitnaal fitnaal waaye su ma ko déggee dinaa ko kaasal. ba pare ree ree bu sew daan loolu nag sama opinion la. mu nga wax ak ñële. xam nga loolu du dëgg parce que ñoom duñ xeexal góor. mu xam ne def na erreur te bu demee fee danañ ko wax mu ne sama opinion la. maanaam teel cee génne ñi mu ko bokkal. ba pare daf ko wax rek ree man su ma gisoon góor bu koy def danaa la xeexal ba pare ree lu tax ree bi ree bi mooy li mu wax ni sax gëmu ko. ba pare gaaw dabaatal wax ñu ne sama opinion la mooy buggul dem sax gars yi naan ko li ngay wax nii bokkul ci combat bi. ñu góor jigéen la ñuy xeexal. te li ñuy xeexal ci jigéen du dëgg du yoon mooy dañuy tas kër yi jàmbur yi nen bàyyi jigéen ñu ñu sëy. Ah ñoom sëyuñu. Mhm. yu ñu utuñu palt utuñu place di tas sëyu jàmbur yi mais ñoom bu ñu bëggul sëy jigéen ñaa ngi sëy nañ leen bàyyi ñu sëy waaye ay bun la yilifa ak de ménage ak cest à ay tur yoo xam ne kenn xamul <laughs> nga déstabiliser jigéen ñi bëgg sëy yow di hmm. taxawaalu ci mbedd yi ak sa benn cartable ñoom ñëpp yàlla nañu am wujj ba duñ ko talat <laughs> mu ngi noonu imaam Ababacar Sylla imaam mm-hmm. xam naa bala maa dem si parti les médias ak élément euh, pour tëje ko ensemble bi mm-hmm. Mouhamadou Mouhamed Ndiaye doo xam nga ko RFM. waaw maa ngi dafa am benn foto boo xamante ni ay muus la ay muus muus yi nag. Hmm. ñu ngi leen ràññisale nii Mouhamadou Mouhamed Ndiaye nee na mbuur. Hmm. ñoom dañ doon jàpp ay muus di ko jaay. Hmm. ñi nga xamante ni ñoo yor mayga yi. waaw na nag arrêté nañu leen. ñu ngi si yoon si muus yooyu nga xam ne ñu ngi ko doon jàpp di ko euh, jaay mayga yi. mayga yi di ko togg ba mu neex def si soble marine ko di ko jaayaat nit ñi. nit ñi naan mayga ndekete muus la ñuy lekk muus de xanaa dagan na. déedéet mos daganul en tout <laughs> boo waxee ak jaay mu ci ba pare. nga ñu ñëw waxtaan si dagan naa. li may njëkk laaj mbaa lekkoo si rek ba pare sax. xanaa yàlla boo ci bokk. bëgg na may kam <laughs> <coughs> non sëñ Assane jàpp naa ne ñi doon jaay muus yi dañ leen a war a jàpp parce que nag yabaate mi ngi yëm ci di jaay ay muus ak xaj. Hmm. sëñ bi dëkk bi li fi ne ci ay xar muus toll ko. ñi ngeen di gis. waa gis nga li fi ne ci ay xar. Hmm. muus toll ko fi waaw mais muus tamit mënul yomb gis nga li xam nga xam nga xam nga lii di di ñaata muus la sax juróom benn mm. muus allah kii ko feesee asan asan asan bul dugg ci loolu yow est-ce que daawoo ko def sax <laughs> non siiru siiru moom daanaa ko mais lii moom daganul ah, en tout cas ne lii lu si nekk muus du lekk medd waaw xam nga yonente sallallahu sallam bi muy wax ci lekk yàpp yi waxul medd dafa ne hmm. Euh, yàlla dafa téere lépp lu am sell ñu lekk ko sell naha rasulullahi sallallahu sallam an akli kulli dinaabin hmm. mina mooy dëgëj bu gudd daal waaw sell mooy ah sell waaw bëñ gudd waaw bëñ gudd yi sew yi ne fii hmm. ñi ko am ñépp daanaka dañuy fàtt mën a màtte ñoom lañuy tuddee ndëg ment xaj dugg na ci muus dugg na ci Euh, gaynde dugg na ci tene dugg na ci saafaandu dugg na ci segg dugg na ci jaar nag non jaar boobu jaar du fàddaate jaar jaar du fàddaate non lëg bokk ci asan asan lëg amul sell déedéet lëg amul sell till na xam nga till xam naa till bu baax till bokk waa ci la bokk mais till gaa yi nga koy lekk déedéet ah, xam nga till till ñu ngi koy lekk de ah ñu ngi koy lekk waaw ah bon gis naa ko waaye ah loolu gisagu ko ko ma ñam naa saam déet daal <laughs> waaye naa si <laughs> mais en tout cas muus dafa xaram hmm. xaj dafa xaram hmm. te xadis la bu leer yoon salaahu salaam moo ko wax ni dafa tere ñuy lekk boroomi sell yi bokk ci ndëg ment yi comme gaynde comme segg comme tene comme saafaandu euh, comme lu mel ni xaj ak muus hmm. yooyu ci lañu ñu bokk luy naaw nag lépp dagan waaw yi naaw koy yëpp dagan moo xaw ma yëpp ñoom soccet ak yi ma xam ci yi déedéet moo tax ma ne la xaw ma lii naaw lépp mais li ma xam ci lii naaw gis nga mën a soccet eh, soccet am na ñu koy lekk gis naa chinois yi di ko lekk dagan ah bon soccet gisu moon araam na hmm. mais xëy na ñoom seen xel nangu na ko gis naa ñuy saaf ay soccet ak ay mbot ak ay sax ak yooyu. waaw mais ñun mënuñu ko lekk waxuñu ci dara dagan nag. ah déedéet waaw yooyu am na ci yoo xam ne ñun duñ ko lekk mais ñoom seen xel may na leen ko parce que duñ julli. ñun daal ay sell lañu suñu yeneen. ah waaw boroomi sell moom mais la am na leneen lu araam lu dul boroomi sell asan bëri na. Hmm. ah ah am na yeneen yu araam yoo xam ne bëri na. am pagay yoo xam ne amuñu sell tey te te duñu leen lekk. Hmm. yi araam yëpp mënoo ko lim mais tey bu yéen salaahu salaam ne boroomi sell am na yoo limul te ay boroomi sell lañ te xamoo leen dañuy daal di arab euh, ak yeneen tey mbaam xuux doo ko lekk. mbaam doo ko lekk. dëgg la fas bu dee am na wér. mbaam gonk daa mel ne mu mbaam normal nii mbaam kër li ñuy tuddee mbaam kër ñun. ak mbaam àll wala mbaam xuux. Hmm. yooyu yow doo ko lekk mu sell daa daganul de. mbaam daganul déedéet fas lay am yenn ci mesure bi yenn ci mesure bi yu ne fas dagan na. fas kay fu mu dagan te loolu euh, bon hmm? waaw moo tax ñun de mase bi ñu nekk nangoo ko. nanguwul fas parce que déedéet. nanguwul de euh, déedéet nanguwul mbaam. nanguwul lu tax mu bañ ko. benn la mbaam xoo dafa araam yàllaa ko araamal moom. Hmm. waaw yooyu yëpp dafa reer. hadis bu leer yonent salaahu salaam na mbaam dafa xaraam mooy mbaam sëf yi nu xam ñun. yu ñuul yooyu ak mbaam xuux yi ñuy lekk yëpp dafa xaraam. Hmm. waaw moo tax yooyu moom ab jullit waru koo neexee ci dibiteri yi. te man jàpp ma sax bëgg a jarle la. wala bëgg xaalis parce que man jàpp ma ne koom mi ngi ci parce que muus bëriwul. muus bëriwul mais muus bëriwul nga say jaay ñaata sandis. waaw sandis bëriwul di asan baal sandis waay maanaam mën nga si am dix dix sandis. jàpp muus rek problème la sandis mille francs sandis mille francs. am na muus yi lewet. da ngay woote rek ñu ñëw. astafurlah <laughs> jàpp muus rek problème la. asan yow liggéey bi yitteel na la de mais en tout cas daganul. daganul <laughs> même bu neexoon daganul xaw ma nu mel. Ah. mais daganul li ko def lu leen si mën a fekk. lu leen si war a fekk nañu leen caw nañu leen caw te ba leen ñu dem. Mm. wax leen ne buñ ko defati Ah. bu dee xamuñu ko woon. Hmm. ñu sanctionné leen sanction bu yemamaay buñ ko defati. Hmm. ñu leen ci jàppaatee nag moom na sanction bi gën a métti parce que ñi ngi jox nit ñi loo xam ne bugguñu ko xam nga ñi koy jaay xam ne nit ñi bugguñu ko. mais dañ koy nëbb. dañ koy nëbb indi leen buñ ko xasee saaf dootoo xamati lan la. te yàlla lépp lu mu tere am na loraange gu ci nekk. ndeysaan lépp luy borom seen yàlla di ñu tere ñu lekk ko. boo ko lekkee am na lor gu muy def ci sa yaram doo ko hmm. xam. am na solo mais nag ñoom nañu respecté nit ñi waaye bëgg xaalis waru leen a jaral ñuy jaayi muus ñu ngi def lu xaram